asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveiller conscience euh, ñu dellusiwaat rek à chaque fois bu fekkente ne am na événement bu dugg si nar a jaxase boppu xale yi euh, ñu ñu fekkoon lépp doon ay témoin njug indi dëgg ba xale yi mën a comparer xam fu ñuy jaar kenn ku ne gis na fan yi sorte bi nga xam ne Robert Bourgi def na ko Robert Bourgi doon un docteur en droit un type qui enseigne le droit euh, koo xam ne nee na xam na droit ba pare wañu ko lënkaloo ak français yi euh, di torturer Afrique c'est un travail kila a accepté plus d'une quarantaine d'années quarante ans euh, nga exploité ko awle ko ci yoonu impérialisme indi say droit teg ba jaxasee adduna du Robert Bourgi rek daanu ñëw ci la famille Khouri la famille Yasbak ak yeneen famille yoo xam ne ñu ngi nekkoon Sénégal ah, daan jëndi gerte ca jamono yooyu te it am na ñeneen ñoo xam ne ay nit lañ ay diplômé yu jànge France ku ci mel ne maître Abdoulaye Wade ku ci mel ne Senghor ku ci mel ne abdu juuf ba ci Macky Sall mii ñoom ñëpp ah, lépp loo xam ne dal na Afrique rek ñoom ca la ñu bokk mooy affaire bu bëgg a négliger mais tant que tant que réglé situation boobu pour nu mën a jubbantiku du sotti ngit bu gëlëmee fa mu war a jëkk a xam mooy fi mu nekk mooy fan ak fi mu toll mooy fan ak lu mu def ba ñëw fi bu boobaa dana mën a xalaat lu muy def ba dellu fa mu jóge woon pour mën a déparaat li toroxal Afrique sonal nu nga xam ne la famille Foccart ci la ñu bokk les Bourges ci la bokk naar libaane ci la ñu bokk ak ay traitant yoo xam ne ñu ngi nekkoon Sénégal ay phobie sax ay phobie sax indi leen ko ci réew mi bala may door waxtaane damaa bëggoon a naqarlu jàpp guñ jàpp waa Tiwaawan xale yoo ñuy jàpp te dégguma benn sëriñ jokki gisuma benn kilifa wax ci lu ma méttee ngi noonu xale bi leen téye te kenn war leen a muy xale yoo xam ne xamuñu kasso am na ci ñoo xam ne bi génnee ak léegi bi génnee ak léegi dama ne seen bët bu ñu koo gëmm am na ci xale yoo xam ne gént lañuy fanaanee ak tiit am na ci xale yoo xam ne xamatuñ fu ñu jëm dañoo ragale dem ñoom dong am na ci xale boo xam ne yaayam yaayam nee na ba ñëwee ba ndëgën ndey ji mënta mënta gëmm bëtam nee na bu génn si yaay ñu ko toogal ndax tiit loolu jóob si def te teg ko fenn tegu ko fenn le gouvernement du Sénégal war na cee jóg xale yoo ñu toppatoo leen faj leen xale yi duñ ay sagar xale yi ay nit lañ surtout yow bu ñu ànd yow président Ousmane Sonko ba nattu bi dab leen nattu bi dab leen bul ne rek don de choix xale il faut ñu fag leen delloo si leen ci société bi pour ñu mën a jot seen àq ci réew mi li Jóob si def teg ko dëgg defu ko yoon may ñaan nag. képp kuy avocat Sénégal wala képp ko xam nga xam nga dara ci Amnesty International les règles de la Croix-Rouge ak lépp loo xam si jëm na ci ay ay ay ay ay peine contre l'humanité ngeen jàppale xale yi mooy dëgg parce que bu ngeen ko deful bu ngeen ko defut dama ne ak tooñ aw jiwu la foo ko xëpp dana meññi te bu meññee suñu mu sewele dun ñëpp Diop si dañ ko war a arrêté te lii mu def xale yii président jóg wax bu fekkee ne leen war faj ñu faj leen ndax seen bokk jaaxle nañ lépp loo xam ne wax naa leen ko bu ngeen ko jeexee da ko gis Sénégal ma ñor ki leen ñoruma Sénégal baax moo ma ñor li leen ñoruma te waawoon maam fa wu mag wàllu mag wàllu mag doon dong ba El Hadj Abdou teraanga bu ne defal na ma ko. ba fii ma nekkit ak fu ma mës a dem moom laay wéttalikoo kon Tivaouane bu fekkee am na problème man dama cee war a taxaw noonu ICS nekke foofa Indorama xam naa lépp Indorama diil bi muy diil ak sëriñ si xam naa ci lu bari waxoon naa leen leen saxaaru saxaaru googu wërta aw ci gaaru Tivaouane waru faa aw sept ba huit kilomètres war a daan dëkk bi xawma li muy mos wala li muy maye tax ñu bàyyi ko waaye du dëgg du yoon xam naa danaa bàyyi maam Thierno wax ci mais prochainement danaa benn émission bu gën a yaatu Diop si bandi la bandi la wuyu nag bu yor xaalis di ko jox dajeeg sëriñ su bëgg xaalis askan woo daanu sonn fii li may wax sax dana naqari ñu baree baree bari bokk wér ci réewande déedéet ku xam li muy wax la ku xam li muy wax la dama ne saxaaru Tayba googu wëtta yendu ci gaar bi waru faa jaar sax ba di fa aw kon nan dem ci waxtaan yi jëm ci ñi nga xam ne di ay complice lañ nga xam ne ñoo bokk yàq Afrique bokk troxol Afrique bokk wornu sous les yeux sous les yeux des Nations Unies sous les yeux de la communauté internationale sous les yeux ci ñi nga xam ne dañ ne dëgg lañ fi nekkal lu mel ne CPI e tribunal international bi nga xam ne moo nekk Hollande nga xam moo war a veiller lu bëree bëree bëri benn groupe de français benn group bu tubaab benn groupe bu sioniste taxaw benn group franc taxaw di torturer Afrique de l'esclavage à la colonisation mu metti metti metti ba heure bi Bourgi xam ne lépp jeex na mu jëfur euh, su Bourgi toogee quarante ans après wala quarante cinq ans après di regretter di regretter xam ngeen ne dee nañ xam ngeen ne dee nañ euh, bu leen yàkkam ngeen ko déglu xale di leen déglu déglu leen ko ba mu àgg bu ko déggee def analyse wax ji yàggut mutu sept minutes wala huit minutes ca lay toll bu ngeen ko déglu ngeen mën a comprendre jëf ci bon ji fi Abdoulaye Wade def jëf ci bon ji fi Senghor def jëf ci bon ji fi Macky Sall def ak Abdou Diouf Macron dafa am fulla rek dafa am fulla waaw maam da ko day doqo dafa nekk dóoral jël mu di ko yor wetam di duma di fab kan boo ko déglu Bourgi ba noppi nu continuer waxtaan il faut souhaiter la fin définitive de la France-Afrique celle dont j'ai le témoin dont et dont j'ai été le complice ça fait beaucoup de choses négatives je suis Robert Bourgi 79 ans acteur et témoin de la France-Afrique et

ancien Premier ministre de Giscard d'Estaing, maire de Paris, de lui dire non, monsieur, monsieur le maire, je ne veux pas. Mais c'était difficile. Alors je l'ai fait. J'ai accompagné les émissaires. Je ne referai absolument pas ce que j'ai fait pendant ans. Je ne le referai absolument pas. parce, que, euh, d'abord, j'ai j'ai mûri, j'ai vu des choses, J'ai voyagé à travers tous les pays africains. Souvent, je me disais, euh, Robert, tu as, tu as été chargé d'accompagner un émissaire qui avait 10 millions euh, d'euros, 5 millions d'euros. Ça aurait fait euh, des puits, euh, ça aurait fait des écoles, ça aurait fait un dispensaire, ça aurait servi à quelque chose de plus utile pour les populations. Je ne l'aurais ferai jamais. Et c'est pour ça que je demande très, très, très humblement à mes frères africains, je me considère comme des, des leurs, de ne pas le refaire. Ça ne sert à rien de financer les hommes politiques de l'ancienne puissance coloniale. Ça ne sert à rien. C'est de l'argent, euh, euh, comme on dit en Afrique, gâté, gâté complet, mais euh, il vaut mieux éviter de faire ce que j'ai vu faire euh, par leurs aînés. C'était quoi l'intérêt pour eux Il le faisait par amitié, véritablement par amitié et par respect pour euh, les leaders politiques. Mais euh, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que euh, c'était un investissement sans aucun rapport pour eux. Euh, il n'y a pas de retour pour eux. La seule, la seule garantie au grand moment de la France-Afrique, c'était d'être maintenu au pouvoir parce qu'il y avait des bases militaires, des accords de défense. Mais en fait, les chefs d'État africains, je, euh, je le dis, c'était de grands naïfs. Euh, ils n'auraient jamais dû le faire. Et ils auraient mieux fait de consacrer ce, ces millions d'euros, ces millions de, de dollars qu'ils ont donnés par dizaines de millions, ils auraient mieux fait de les consacrer à, à construire des hôpitaux, des dispensaires, des crèches, des établissements d'enseignement, des routes, des infrastructures, mais cela n'a pas été fait. C'était de l'argent jeté en l'air, véritablement. Pourquoi raconter au début de l'année le président Omar Bongo, il m'a dit Fiston, tu comme il m'appelait, et moi je l'appelais papa, il me dit Fiston, tu sais tout ce que j'ai pour les hommes politiques de droite et pour les autres euh, depuis euh, 40 ans. Depuis quelques années, je sens que l'accueil qui m'est réservé en France est de moins en moins chaleureux. Parfois, je cherchais à voir Jacques Chirac au téléphone, on ne me le passait pas ou j'avais difficilement euh, des rendez-vous. Mais ça n'est pas grave je te demande une seule chose. Je ne vais pas tarder à partir. Je lui dis, papa, pourquoi parlez-vous comme ça J'espère que vous allez tous nous enterrer. Il me dit, fiston, je suis très mal. Et il est parti d'ailleurs en juin 2009. Et il m'a dit, je voudrais qu'un jour tu sois ma mémoire et que tu puisses tout révéler de ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai fait. mais seulement lorsqu'en 2011, dans le JDD, j'ai fait euh, de grosses révélations, la planète médiatique m'était tombée dessus et les chefs d'État africains que j'avais servis euh, depuis euh, des décennies m'ont tourné le dos. Euh, ils se sont dit mais qu'est-ce qui lui prend Robert, notre frère, notre ami, notre confident, notre conseiller Qu'est-ce qui lui a pris de raconter tout cela, de déballer Seulement, euh, ils n'ont appris que en même temps que vous tous, pourquoi j'avais fait ces mémoires. C'est la promesse que j'avais faite au président Bongo mourant. Vous racontez aussi dans le livre le dernier contact que vous avez eu avec Laurent Gbagbo. depuis le bureau du président de la République française, où j'ai essayé de, de solliciter du président Sarkozy qu'il admette que Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Pour vous, il avait gagné euh, Non seulement pour moi, mais euh, nous savions en France qu'il avait gagné les élections. Mais le président Sarkozy avait obtenu un mandat des Nations Unies pour, euh, pour faire euh, respecter le, le, les résultats euh, proclamés par la CENI, alors que le euh, Conseil constitutionnel ivoirien avait déclaré Gbagbo vainqueur. Et c'est là que le président Sarkozy a prononcé ce mot euh, vitrifier Laurent Gbagbo. Il a dit il va euh, vitrifier Laurent Gbagbo. Ah, il l'a dit dans son bureau. pourquoi voulez-vous que je mette dans la bouche du président de la République française des mots qu'il n'a pas prononcés euh, Le livre, il, est sorti il y a deux mois. Vous avez vu un seul démenti de mes propos Personne. Personne parce que je ne dis que la vérité. Je ne dis que la vérité. Mais aujourd'hui, quelques années après, j'ai tenu à ce que la vérité sorte. Pourquoi Et parce que je trouve que on n'a pas laissé Laurent Gbagbo gouverner comme il avait l'intention de gouverner la Côte d'Ivoire. Et moi, je dis haut et fort que ce serait une faute majeure de laisser le président Ouattara interdire au président Gbagbo

J'ai salué l'éruption des militaires au Niger, au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Euh, la faillite du pouvoir civil, euh, copie conforme des anciens présidents, a, a, a, fait en sorte que pour sauver le pays, il ne fallait que les militaires. Et moi, je trouve que, ma foi, ils se débrouillent bien, les militaires. Il ne faudrait pas leur tourner le dos. Et vous me parlez de mon pays natal, Jomaifai euh, et Ousmane Sonko.

Et il faut, il faut que la France s'adapte. Et ce que les Africains ne supportent plus, c'est l'arrogance. L'arrogance euh, du président Macron. Quand il s'adresse à ses pairs africains, c'est comme s'il s'adressait à des étudiants. Voyez, s'il tourne le dos à la France, euh, dans certaines républiques, c'est par la faute des dirigeants politiques français. Et c'est tout. Combien de chefs d'État africains vous avez euh, fréquentés euh, Vous avez une idée une vingtaine. Au plus près. Une vingtaine de chefs d'État. Ah oui, au plus près. Il m'est arrivé de rentrer dans la chambre du président Mobutu, du maréchal Mobutu au, au Zaïre, à Gbadolité, comme il m'est arrivé de m'asseoir à sa demande dans le fauteuil qui était le sien dans l'avion présidentiel. Ce que on, on ne s'assoit pas dans le fauteuil du chef. Ça m'est arrivé. à Dakar, ça m'est arrivé au Zaïre, ça m'est arrivé bien entendu au Gabon, euh, ça m'est arrivé en Mauritanie. Euh, euh, pour ça que je vous dis que il faudrait me cloner et faire des, des Robert Bourgi, mais avec euh, moins de choses désagréables et négatives à son actif. Voyez. Désagréable, c'est-à-dire en... J'ai souvent euh, euh, était un connaisseur de choses euh, pas très honnêtes, pas conforme à la morale, humaine. Euh, gardons ça pour le tome 2. waaw noo ko boo ko dégloondoo oh, nee am na yeneen révélation war na koo def mais da koy garder pour le tome 2 maanaam benn waxtaan wi dikk dana gën a gudd te dana jox yenn yoo xam ne yu doy waar lay doon waaw lépp loo xam ne amoon nañ ko affaire ñu sàcc ko dama ci njëndum jàmm ba ndëgëndi de l'esclavage la colonisation le néocolonialisme l'impérialisme ba ci indépendance yu bon yi bon yi dama ne sonn nañ sonn nañ àdduna bépp a dajaloon nag yërëm nu yërëm nu moo tax lii dakk noonu sioniste yërëm woon juif yi ba juif yi réussir tey àdduna bépp a ñu doon ay homme de droit xam naka la ak numu ñoo xam ne esclavage bëgguñu ko lépp lu jëm ci lu bëggoon lu mel ne président russe bi ak ñeneen ñoo jóg taxaw ñoo jox Afrique sono nañ sonn nañ waaw day dakk day dakk loolu lañ wax waaw nii ko Ousmane Sonko doxalee noonu la les pays du Sahel juumuñu les pays du Sahel lii ñuy def noonu la tey histoire jox na dëgg Ibrahima Traoré jox na dëgg la président malien ak bu Niger waaw a du dara dañ ci génn waaw c'est la France Afrique la CEDEAO waaw lii fo lii waa ji wax euh, Bourgi wax te Foccart waxut te du Foccart rek dafa bari ñoo xam ne liggéey nañ ci France Afrique waaw depuis que le CFA est là ñoom ñoo koy manipuler ñoo ni duma ñoo ni dóor ay faux billets li bàyyi ni daan def yëpp yëpp amoon na bu ma ko ma sax da ngeen di fel sama gémiñ waaye Abdou Diouf baaxut Macky Sall baaxut euh, Ablaye Wade baaxut liñ fi yaakaar te yaakaar ko mooy Ousmane Sonko projet bi mu indi ànd ko les du tiers monde nga xam ne addu bi ci jàpp ki c'est une c'est une révolution humanitaire révolution boo xam ne bu leen defee ne Ousmane Sonko moo ko imposé déedéet adduna bi tax nii ñuy def africain yi métti na mu Nations Unies explosé ah UNESCO explosé organisation internationale explosé xam ne nii France def jaaduwul France mooy troisième puissance mondial ci or te tey woon pik ak peele ki machine di gas ba àgg ca ndox ma Paris doo for përëm përëm doo ko for te France tey mooy troisième puissance mondiale en stock door ci banque centrale am est-ce que loolu yan na maanaam saaba doon laa bii ñu di ko gas di jox di pour cent ñoom di jël quatre-vingt-dix quatre-vingt-dix billaahi li sunu maam waxoon dëgg la koy bañ mu nax la bu mu la jàngal koy bañ mu nax rek la jàngal sab noon boo jox sa doom di ko jàngal waaw billaahi Abdou Diouf bon mak Sall yaa bon Senghor yaa bon ah li ñuy def réew mi ak gouvernement yu corrompu yi ah dama ne Niger dana dem Mali dana dem Burkina Faso dana dem nit bu soobee yàlla ñu dem ndax le président Ousmane Sonko jóg na ci ten félicité ten félicité ni wa les pays du Sahel te am na beneen scandale bu ñëwagul Sénégal ci la bokk mais da koy jéem a tàngam lu te Ousmane du ko nangu waaw mooy le saara occidental le Sahara occidental ñooy wàllu mag a mag a mag une bonne partie du Sénégal Senghor da koo jël may ko Mauritanie te amu ci benn raison ñi gërëm femme bi jàmbaar la lam def ruus gis nañ ko muy Yacine waaw lam def New gis nañ def Russie gis nañ ko ñu di ko fi Guy Marius Sagna àddina bépp ba Kimmo ak tous les panafricains sénégalais yi jàmbaar lañ la fa nekkoon nag bu leen ko tëkkale lii fi ne lii fi ne moo wuutu ñi fi nekkoon ñi fi nekkoon ay bandi lañ ay sàcc lañ ay wuyu lañ ay délinquant lañ yoo xam ne France la doon xëyal ka wàccal waaye ñii fi nekk tey jotewuñu kenn dara juróom-benn weer lañ fi amagul na leen déglu ils nous proposé un projet de deux mille cinquante et ce projet la kan ko déglu waaw lii français yi doon def nag gis ngeen ko danoo posé na suñ doom yi ah da ngay judd ñu ñàkk sa doom xale bu màggee dee nga maam ba bi wëlbatiku wala nga nga faatu ndax explosion démographique bi war am ci Afrique moo tax tubaab bi jóg tàmbali ñuy rey ak pikiir mais kii nga xam ne moom Trump tànn tey muy Robert Robert euh, Robert Kennedy Junior kooku dafa jóg ànd ak africain yi kooku dafa jóg ànd ak Third kooku dafa jóg pour taxaw liñ fi dëgg ñu wax ko ñàkk yu bon yi suñu def yëpp ah moom doon na ko signalé waaye tey kooku moo dikk taxaw dana leeral lu baree bare moo ñu ñi daw ñi dañoo daw dikk di jéggalu léegi mais jéggaluñ kenn même Ablaye Wade Ablaye Wade atte leen ko peine de mort la waaye atte leen ko peine de mort du moom rek ñoom ñëpp képp ku fi nekkoon di dund toroxale ni réew mi nañ la atte peine de mort ën la ba pendre la ñu gërëm Cheikhou Touré bañ na ba ba bëgg a dee bañ na ba faatu di gërëm Cheikh Anta Diop bañ na ba faatu docteur Kourouma xeex na ba faatu Thomas Sankara xeex na ba faatu la France a assassiné plus de trente présidents au sein en Afrique. plus de trente présidents Modibo Keïta a été assassiné en prison. Thomas Sankara bu cugum dara kam lañ ko rey Olympio dañ ko fusillé. bëccëgum dara kam ci mbeddi Togo yi français lu bon loo xalaat def nañu ko Cheikh Touré on l'a exécuté te du moom dong Afrique li fi tubaab yi kenn xamul nu mu toll ku doon jéem a bañ bàyyi maag sama yëf képp moo doon problème bi lifi fi France organisé ay coup d'état coup d'état kenn xamul nu mu toll président yi fi installé ñu ne fi quarante ans di nax réew mi kenn xamul nu mu toll moo tax Ablaye Wade dafa gulti Ablaye dafa gulti nañ leen jàpp pendre leen bu leen xool bi jaaw bi ay bandi lañ moo ko Abdou Diouf ne leen stade bi pendre leen lii bur ci doon def ñoo ci àndoon moom ñoo ci àndoon ak moom ba toroxul tey réew mi nii dama ne kan jóg ci ñi képp ku ci yor bakkan dina la atte atte peine de mort wékk la stade bépp ñëw seetaan bu leen faale bi jaaw ay bandi leen bi jaaw bi amul solo wax naa leen ba tay ci ab Ablaye Wade ngeen dama ko bañ bañu ma ko kii doomu Mor Talla Wade mu séq ak noonu mbaa waa daan kóolare gu yàgg waaye couleur lu mu yàgg yàgg yàgg boo tooñee dañ laa war a indi li dëgg Wade daf noo tooñ dañoo tooñ Cheikh Anta Diop li ko li ko sonal Wade mi mucc ci Senghor mucc ci français yi mucc ni ci Amnesty International war na noo jóg war na noo jóg lii Bourgi wax lii Bourgi wax dafa jaadu woon nu convoqué au tribunal mondial mu expliquer la situation waaye comme tubaab la kenn wax dara comme daal réyul juif comme tout le juif yi moom du am benn problème ñun nègre yi kay noo sonn noo sonn Macron doo nitu dara doo nitu dara waaye doo rëcc billahi billahi doo rëcc la Russie dana la koon ba mu saf-saf dama ne la Russie lu naqari danañu ko faj de l'esclavage à la colonisation boo demee Amérique ak foo dem nu ñu ñun ñaa ngi taxawaalu ñu teg ci ay bërigo duñ jaay teg ci bateau ñu jaay durant ce quart de siècle durant ce quart de siècle toutes les universités yi nekk en Occident tànn nañ ci université spéciale yoo xam ne ci étude démographique ci la ñuy liggéey nu ñu wàññee nit ñi surtout hôpital Pitié surtout université nekk France nu ñuy wàññee nit ñu ñuul ñi parce que dañ explosion démographique bu dikkee dix pour cent des africains bu ñu duggee Europe Europe dafay noir Europe day day day day day ñuul kuk xam nañ ko moo tax ñu dépense ay milliards dañu daan ñàkk plan familial lu bon loolu def nañ ko moo tax nous devons porter plainte au niveau du international pour imposer suñuy droit wala ñu téye suñuy ressource mignaar ñoo moom suñ or moom suñ lépp nañ téye lépp communauté européenne bi torox ndax la communauté européenne est complice lu bon lépp loo xam ne dafa africain jaar na ci c'est la communauté européenne moo ko assisté moo ci complice waa perte nañ parce que le président russe le président Poutine ñu ngi koy félicité bu baax dafa tax a am lu mu bañ africain yëpp xam ko bëggandoo ko soppandoo ko xam ne moo ni ci dëgg kon président Poutine ñoo ngi lay ñaan may nu bët may nu xel ndax ay saay-saay lañ ko seqal ay bandi lañ ko seqal ay vayu lañ ko seqal ku mel ne Macron du nitu dara c'est un hypocrite c'est un hypocrite te nun dañu war a dund comme ñëpp suñ doom yëpp jeex nañ ci géej gi ñëpp daw na ba xamatul fu ñu jëm kenn xamatul looy def France toog suñ dugg xol ànd ak gouvernement corrompu des gouvernements corrompus yoo xam ne xamuñ dara moo war a suñ toxtaangi gi ay CEDEAO diñ nax France af diñ nax ñu mel ne ay golo topp seen ginnaaw ñu diñ jabaroo ko di fi yëf dama ne yow jot na xale jóg leen ngeen jël seen alluwa dem jàngi dem leen jàngi àdduna bi xam-xama fi ne ak fulla ak fayda ak mat c'est le nationalisme jóg leen ngi liggéey seen boobu Ablaye Wade mii ak ñii mu àndal ñëpp dama ne billahi wallahi dañ leen war pendre ku ci dund yor bakk na leen stade pendre ñëpp fekke ko amul bijaaw amul dara trax tàngi gi ñu nekk ñoonu ko yóbbee jël suñu alal sarax ko tubaab bi billahi ñee bon maa ngi jégalu bu baax di ziyaara di ñaan jàmm nag di jàmm te lii Jóob si def nan ko bokk naqarlu xal yi mu tëj Tiwaawan téye leen sonal leen am nañ ci aw naqar metti nañ trop waaw Tiwaawan boo fa laalee kenn rek laal nga nu laal nga nu ndax sunub dëkk eh, mu bokk ci réew mi muy réew moo xam dëkk boo xam ne yàgg nañoo sonn taalibe moom yalwaan rek taalibe yalwaan ab sëriñ tedd taalibe yalwaan bi son eh, man da Seydina Ousmane Dramé a ah, la réveil de consciences yàlla buur yàlla sutural te indi jàmm yàlla buur yàlla sutural te indi jàmm te xale yi ngeen góorgóor dem jàngi dem leen jàngi ngir yàlla dem leen gëstu ngir yàlla dem leen jàngi dem leen jàngi peace and love